yi ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ça vraiment ci yoonu Colobane bi gis ngeen ay manifestation yu yéeme yu jéggi dayoo ci Colobane bi vous voyez bien y a les gens les manifestants yi nga xam ne ñoo ngi génn di saccager di taal euh, di euh, indi ay euh, tolof tolof ci mbir bi bu voyez bien ñoo ngi gën a mer. di wane leur colère si vous ah, na lool manifestation yi ñoo ngi ci bépp boor fii nag mooy diggante HLM jëm Colobane yoon bi may dem ni mooy yoonu Castor manifestation yi jéggi na dayoo oto yi euh, amuñu fu ñu dem mu ngi doon loo xam ne lu doy waar dinañ leen génneel nag lépp lu fi xew en live et en direct la chaîne Dakar Live TV Oldu <laughs> foofu rek. ¿eh? waaw sama gars yi fii si Touba Mbacké nag moom policiers yi ñoo ànd ak Baye Fall di manifester di bëgg toroxal gars policiers yi ñoo sol gilet euh, yu yu vert yi léegi ñoom ñoo bu gars yi baaree ñoom ñooy ñoom ñoom ñëw xàllal policiers yi ñu jàll pour ñu mën a toroxal nit ñi policiers yi ak Baye Fall ñoo ànd Baye Fall policiers yi ñoo sol gilet yu vert yi Baye Fall ñoo policiers yi policiers yi ñoo sol ñoo policiers yi nekk ni Baye Fall ñoo sol gilet yu vert yi lii ñaaw na wax dëgg yàlla lii ñaana na si Touba. arrêtez benn oto rond-point Médina Baye ñu ngi dàq police bi ñu ngi dàq police yi police baa ngi police police baa ngi daw oto police baa ngi daw oto police baa ngay daw oto police baa ngay daw oto police baa ngay daw oto police baa ngay daw patrouille topp nañ leen ñu ngi fii ci rond-point bu Médina Baye li mu amagoon fii ci Kaolack bi ñoo ko gisandoo ñoo ko gisandoo fii ci Kaolack oto police dafa ñëw bëggoon a disperser li mooy foule euh, Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Amer et de Macky La dictature ne s'installera pas au Sénégal. Et je demande à tous les jeunes du Sénégal, à tous les enfants, les hommes, les femmes, Macky de nous résister pour sauver ce pays. Oui. Résistance Résistance Mais Macky Sall dina partir, dina dem. Dina dem. Macky Sall

kaw pont Colobane bi lañ nekk nii mënuñoo dem mënuñoo dikk rond-point Colobane ngi noonu yëpp dañ ko baare dëkk baa ngi jax Non au report des élections. Fuck you Macky Sall. Venez nous on est actuellement à Grand Dakar. Venez, sortez massivement. Qu'on en finisse avec le tyran. yéen a ngi gisandoor fii si baa ngi nii am naa moom na askan wi génn rek ndax li leen Macky Sall xëñ nii seen àq la ak seen yelleef ak seen droit génn leen ngeen xeex ki benn yoon mu jeex. seen liberté la leen bëgg xañ seen àq ak seen yelef ak seen droit lu ko jaral pour toog fi na leen ko jaral pour mu jóg fi le 25 dañuy tàqaloog moom si nii wala si naa jóg leen fu waaye mënu nekk askan wi jóg leen ngir yàlla te yàlla tax lii xeexu sénégalais du xeexu politiciens yi yéen sénégalais yu toogoon di xaar élection di xaar woote di xaar dam si mbañ gàcce ga yéen la Macky Sall xañ seen droit ak seen àq ak seen yelef jóg leen ngeen jëlee fi Macky Sall jeex